bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin kilifa gi noo ngi lay nuyu man ak mboolem ñi ma bokkal borom kër gi Cheikh Abdul Qadir Mbacké njabootu boppam gi ak i bokkam ak i taalibeem yaaji ci ñoom te lépp bu ma nee mbokkit bokk yàlla da ko bind tànnal ñëpp kenn ku ne mu tànnal la say bokk moo tax mënu su ko ñàkk tudd waaye Serigne Touba daa baaxe ay bokkam ba ñépp kenn nangootu sax ko leen limaale ci bokk yi ñëpp ci taalibe li ñu limaale kon mboolem ñoo yi ma lim ñëpp sag njaboot njaboot gi nag wax nañ ma nee na naa la jot li seen jant ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko nekk ren ji gi màggal waaye bañ ko tàmbalee ba nëga ni nii rek nga ko mas di def ci jamono sëriñ moodu bam ci amee ndigalu Cheikh Saliou Mbacké ba tey nii nga koy def waaye sant nañ la bu baax itam ci taxaw bi ngeen nuy taxawu ci lépp lu nu nekk ak taxawaay bi nga taxaw ci yoonu sëriñ Touba wi ak ni nga taxawee ci bopp yi ak ci lislaam loolu lépp waa kër gi amal nañ la ci cant amal nañ la ci ngërëm goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem duñ man lenn lu dul ànd ñoom ñépp nekk benn kàddu nasu benn nas teg lépp ci say loxo lépp loo nekk rek ñu ànd ko yow loolu rek lañ la mën a fayee te di la ñaanal ci barkeb borom kër gi ak ci barkeb Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne ku la xam rek xam ne seey nga ci moom tamuy lu ko jar ak ci barkeb Cheikhul Khadim mi nga xam ne moo ëmb ñëpp moo moom la ñëpp di wut ci loolu mooy cant gi nga xam ne mënees koo ñàkk wax moom la ñu war a jiital ci lépp. Euh, ma jéem a tontu nag kon kii nga xam ne doom la ci kër gi mooy Moustapha Sourang mi nga xam ne moom la njiitul réew mi tànn def ko ci kilifte bu euh, mbooloo mi nga xam ne moom la fi yabale si muy ñi bàyyi ko Ndakaaru ñépp sëriñ Moustapha tuddoon na leen ba ci ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal région de Diourbel ak ñi nekk ci département bu Mbacké ak ñi nekk ci sous-préfecture bu Ndam ñooñu ñëpp Moustapha noo ngi lay xamal ne bi président yéegee màggal gi ndigal lim joxoon ministre yi ñu ñu mujjaat ñuy joxaat ko chef de service yi loola lépp sëriñ Sidi mii moo demoon ànd kook ñoom booba ba léegi daanaka ñaari fan ak ñett yu ne nga gis ku bokk ci ñoom di ñëw di euh, nemmiku si ba xam liñ ko santoon ndax mi ngi tegu ci aw yoon wala déet loola moo waral mbir yi ni mel ren mën na ne euh, daana baax naka jëkk waaye nag yitte ji dolliku na bu baax a baax a baax bokk na ci ñooñu koo xam ne dafay mel ne day am ndigal lu yees luñ koy soog a jox te mu def nag loo xam ne ñi mu bokkal service dikk nañ euh, seede ko moo tax mëni su ko ñàkk tudd muy Modou Diagne Fada ñi nga xam ne ñooy wa yëngu ci wàllu wér gi yaram dañ ma xamal ne lim leen joxoon ndigal daal mooy bis bii nañ ko fonk fonk boo xam ne lu euh, luñ ci daan def rek nañ def lu ko ëpp te moom ci boppam moo jël ci alali boppam tàmbalee ko loo xam ne mel na ni ñoom nee ñu fiñ agsi ba mu fi ñëwagul ba léegi mu ñoo am lu tol noonu te wàllu wér-gu-yaram nag dafay loo xam ne daa yitteel ñëpp kon mënees ko ñàkk tudd waaye nag nañ xam ne eh, li mu nekk ci eh, pal gu yees ñu di ko ci ndokkeel moo tax ñu ber tudd ko ci waaye ñoom ñëpp kenn ku ci ne lañ la sant def nga ci la nga mën lépp ba def ci loo mënut kon daal nanga ñu dellool président nuyoo bi waaye ñu ngi lay nuyu yaa ngi ñi nga àndal ñëpp bàyyiwuñu kenn ministre d'État madame Aminata Tall xaritu Ablaye Mbaye mi mm-hmm. waaye nag di xaritu kër gi ku kenn fàttiwut am na wax ju rëy ju suñ Moodu Musaa wax ci moom de su ko fàtte mukk ba tax na ñu loolu lañ ko jàppe kon daal ku lim dangay ngay nañ ma jéggal ma yemale foofu noo ngi sant ñëpp di leen gërëm kon daal na xamal président ne ko li ñu bëggoon ci màggal gi baaxoo na ko fépp foo xam ne xew-xew diine am na fa wala sax xew-xewu aada mu def ci loxoom léegi ci lu lu lu ñëpp seere lii nag kon noo ngi leen di xamal ne na mu ko baaxoo def fii itam def na ko ba defee ko mu sedd suñu xol loolu cant la goo xam ne njaboot gi yóbbante nañ ma ko ci moom kon ñu ngi koy teg ci loxo bi Moustapha mu jot lu ko ñu ngi sant nag waa région bi gouverneur de ak préfet ak sous préfet ñooñu ñëpp daal ni doon yëngoo wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñooy waa kër Sëriñ Abdou Khadir jàpp ni ñoom ñoo woote màggal gi ëpp ñu leen woon yitte ci yëf yi ba tax na kon mëneesu leen a ñàkk beral ak cant ak ngërëm bu loolu weesoo ma dikk ci tombub ñetteel bi muy mooy bi nga xam ne joxoon nañ digal suñ rak sëriñ Moustapha mu jot cee wax muy santal nu bokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëriñ Touba ak ñu bokk ci moom ci wàlluk jege ñaale wala ñu bokk ci moom ci wàlluk euh, wéeruwaay ñu jox boppam sëriñ Touba seenu njaboot ñoo fi nekk ak nun ñooñ ñépp ba fi sëriñ bi nekk kenn mënut a xàmmee ku sëñ Abdou Khadir di sëb sëriñ ak kum du sëriñ loolu noonu ñëpp seere nañ ko noonu lañ daan doxeek moom ñi nga xam ne seeni wayjur dañoo jiitu lu yàgg bàyyoon nañ ko waaye def ko sëriñ ba def ko noo xam ne bu fi seen wayjur woowee leen boole ci sëriñ baa nekkoon it mënuñu mënuñoo weesu lañ koy defal loolu ka nekk ci bopp bi muy suñu mag ju baax ji sëñ Mouhamadou Lamine waaye rakkam yëpp noonu lan gisoon ñi jamono teeg sëñ bi ñëpp noonu lañ gisoon ñu jàppe ko ko ni ko seeni waajur jàppe woon kon nag li ñuy sant rek te di ko dalaleem xel moo di leen gisoon sunu baay yu baax yi di ko def bëggante lool wóolante lool lool lan gis sunu bopp yi di ko jëflante ak ñun am nañ yaakaar ci ne bu matut ci sunu wet la waaye ñoom matal lañ seen wel topp ñu ci dara lu ñu ci waay mag mag mag boo ñu gisee fan nuy teg mënuñu laa jox cër bopp booba kon daal nangeen xam ne gis nañu ko bu baax a baax a baax a baax te li may wax maag sama rak yi yëpp ak suñu doom yi noo ko bokk wax ñu góor ak ñu jigéen sant nañu mbokk yi sant nañu ñi ñu bokkal yoonu murit bi sant nañu ñi ñu bokkal diiney lislaam te mooy bokk ga gën a wér innamal mu'minuuna ixwa kon bokk dëgg mooy bokk ki nga bokkal lislaam ñooño itam kenn seetaanuñu ci bokk nañ ci rek ñu tudd ci sëriñ Maodo si moom El Hadj Abdoul Aziz si dikk na fi tey ñëw na ci siyaare na kër yëpp dem ci sunu kilifa ba léegi la fi jóge noonu ñëpp noo ngi koy sant di ko gërëm te xam ne mbooleem jàpp nañ ne rek jëmmam ji waxuñu waati waawan képp waaye jàpp nañ ne rek mën naa représenté mboolem ñi ñu bokkal lislaam dañu bokk ak ñoom nekk ci biir réew mi. ñu koy sant bu baax ak El Hadj Maodo Cissé mii nga xam ne moom daanaka dafa mel ni Touba la dëkk. lépp lépp luy yitte rek noo ngi ko gis lu ñu xewle rek gis ko kon nag noo ngi koy xamal ne yëg googu mu am ci noonu ak yëg ak yëg a koy fay sun xol yi yëg na ko te ba nu ko yàlla mayee nii muy def ak nun ñëpp am nañ yéene defal ko ko kooku ci deful ci jëmm mit xol ba def na ko kon daal noo ngi koy sant di ko gërëm yéen ñi nga xam ne nag euh, yéenay nja yéenay waa kër sëñ Abdul Xaadir sëñ Abdul Xaadir Euh, mel na ne kenn la ci waa kër Seexul Xadim kon waa kër Serigne Touba dañuy dañuy ñoo xam ne ni ngeen ko xamee boo leen masaana xëy di siyaare bañ fiy nekk ñoom ñëpp nga xëy dugg ci kër gi génn ko dugg ci foo dem dangay ngay fàtte ne yàlla bindati na nit ku baax ni ki nga toogal loolu mooy liñ seetlu daan ko waxtaane lu bari koo toogal rek da ngay jataay bii boo fi jógee jàppoo ne da nga amaat waaye boo demaatee ci kan ka ca desit la nga fay fekk loolu moom pàkkuteefu Sëriñ Tuubaa la boo xam ne mel na ne li ko ci yàlla defal defal ko ñu bari kon nag yéen nag sëriñ Abdou Khadir mooy seen buntu ci Sëriñ Tuubaa ba tax na nun bu nuy wax ak yéen am na loo xam ne si ñeen si leen koo bañ a wax mooy di leen fàttali ki ngeen àndal mooy kan lu mu bëggoon ngeen nekk ca lu mu bañoon lu mu bëggoon ngeen di ko wattandiku yooyu waree si na leen koy fàttali saa su ne ndax loolu damaa war war sama rek yépp buñ ma joxe seen kàddu kon su may wax naa leen waxaat yi ñépp képp koo xam ne Cheikh Abdou Khadir Mbacke nga dikkoon say loxo nekku ko jébbal naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira te xam nañ ne ci Serigne Touba ngay bëgg a joti jaar ci Cheikh Abdou Khadir loola am na bis fii ci saal bi mbir la mum doon waxtaane daa di ciy àgg ne man Abdul Xaadir di képp koo xam ne nee nga mën nga dénk sama bopp sa bopp bés boo defee loo xam ne ma ngay wuute ak sariha la sariha santaane na nga xam ne yaa ak sa bàmmeel Abdul Xaadir ak bàmmeelam fii ci saal bi la ko waxoon mbir a taxoon ma di ko wax waaye nag damay fàttali loolu nga xam ne mooy li itteel ñëpp ku teewe jataay ba ak ko teewul ñëpp nit ko boo ko dénkee sa bopp te lu ne nga aj ko ci bu la jiit fetee sax nga tudd turam bala ngaa lekk tudd ko loolu lu mën di doon nga tudd ko na bàyyi xel nag ci bi nga koy dénk sa bopp lam la wax te it nu xam ne bis boo xam ne day dikk ci kanam ñëpp mu wóor ñëpp ne dana dikk lu mu yàgg-yàgg day dikk te kenn mënu ci dara ka nga yaakaar ne ki nga xam ne boo ko jiitu woon moom nga gëm ne moo la fay fekk xettali la ba nga xamee ne jiitu na la itam taxut sa pasté fa dara soppiku ci foo toll yaa ngi ñaan ci moom ba boo ko fekkee buñ lay tàbbal ci barab boobee mu mu mu nangoo la ci loxo yi ña fay dugal kooku ay waxam mat nay sàmm dugg fa ba ba noppi nag waajaloo ko ba ba la nga bëgg mu mu fekk la fa mu fekk la fa loolu nañ koy bàyyi xel bu baax kon ku ci aju maa ngi lay denc nga góor góorlu bu baax ci jaamu yàlla na nga góorgóorlu bu baax ci rafetal say jikko te am yar ak i teggin ndax lépp loo lépp looy wut te wutee ko yar ak i teggin am ko dana la yomb na ngeen góorgóorlu ci loolu bu baax te moytu pañetum àdduna mii nga xam ne nit ñi jàpp nañ sax ni sëriñ bi boo ko dee jox àddiyee rek doy nañ xam ne sëriñ Touba ñi ña jamonoonte woon ak moom lenn ñoom ci seen bopp mën naa ci joxe ay misaal lenn ci ay jëmm yu néew ku demee na Seex Ibra Fall mën nañu koo tudd ni nañu tey nañ dégloo ngir yàlla li ma bëgg a wax foofu dafa amoon ay taalibe yoo xam ne yàlla dafa def ci ñoom lu bari Seex Ibra moom mi keroog bi nga xamee ne mi ngi wër sëriñ bi te gisagu ko am na ñu sëriñ bi yónnee woon fi barab daf leen seen rek daan ne ñee day bu fekkee ci may wër nekkut fañ jóge ma xam ne du ma ko gis te gis na leen seen rek wax daa dem dab leen nuyoo ak ñoom laaj leen yéen fu ngeen fu ngeen jóge fu ngeen jëm ñu ne ko ne suñ sëriñ moo yoon yónni mu ne leen nu seen sëriñ tudd ñu ne ko sëñ Bàmba da lañ koy wax ndax xam nga tur yi kenn xamu ko mu daan ne kon kooku mooy ki may seet yoo li ngeen di dégg naan Seex Adama Gueye ca la jébbuloon boobee la ko def laa ne ko kon bi ginnaaw gis naa la te yow jébbalu nga ci moom duutuma ab diggante bopp damay duutuma damay daal di aju ci yow mi nga xam ne jox nga ko sa bopp fii ma toll daal jébbalu naa ci moom jaar ci moom waaw bam bañ àndee nag ba fekk sëñ bi Mbàkke Kajoor ci gis googee nga xam ne ma nga fa bu yàggut foofee la ko sëriñ bi ne kooki nga àndal ku mu mu ne ko kooki di Ibra Fall bi ma bi ma yónnee nag jokkoon ci moom ba sëriñ bi waxee ak moom ku baax ku wér xamal na ma ne sëñ bi da ko ne kii xobu xël la ëpp na gimiñu tef kon koo xam ne yow mësula koo gis xamula ko dëkku leen tur tur képp nga xam ci moom nga seen ñu jóge ci kooku nga daan ne ñee ki may ki may seet ñi ki may seet bu ba bu nekkul fañ jógee dutuma ko gis kooku am na lu nekkoon ci moom njëkk muy dikk ci sëriñ bi loolu mën naa leen a jox ba tey misaal ku ñuy wax sëñ Abdourahman Lo jëmm la joo xam ne kenn ñëpp lañ ko siiwee mooy jàngale alxuraan yoral ko njabootu sëriñ bi ñu ci bari ci doomam ak ci taalibeem moo leen jàngal alxuraan walla mu moo waaye ci daal daal nga nekk loolu muy liggéey di xëy boo xëyee fekk ko mu toog ci njawaanam di jàngale lépp teewal bu guddee ci ginnaaw bu mu amee ndigal ci sëñ bi alxuraan gi ñaari rakkaa rek la ko daan def guddi man fi ma njëkkee dégg loolu sax booba suñu bi moo ñuy jàngal ba agsi ci fi nga xam ne dañuy wax ne kaamil bi nga def ko benn rakka dañ koy sib mu xam le ne sëñ sëñ Abdourahman Lori daf ko dafa mas dafa xëy bis muy nettali ne biig di man bi muy naafi la damay jàng ba sóoratul mulki ma fàttaliku ne amaguma rakka ma doog a rukkoo bi mu siggee la doog a mottali kaamil bi kon te bu xëyee mu toog ci njoowaan bi di taxawu njàngalem alxuraan bi sëñ daam Abdourahman noonu la meloon kon kooku ku am taalib bu mel noonu war ngaa xam ne ay mbuucaa mbuuc doywu ko dara hmm? loolu laa ci tuddee ñoo ñi mën nañu tudd sëñ laa Lamin Gay bokk na ci jëmm yi nga xam ne xam nga masul dimaa moom dégg nga sëriñ Musaa ko di ko wax loolu mooy dëgg waaye sëñ Mad Lamin Gay sëriñ bi am na kum doon taxawee bu mu fi bàyyi ko dafa dig te boobu ma nga ci ginnaaw sàppe ndax ku toroxlu la woon waaye sëriñ bi daf ko ñoddi ba mu agsi mën ko doxal topp ci moom sëñ mat layen moo jiite néew ba sëriñ bi ànd ci julli gi mm-hmm. kon sëñ bii daana ko faral di nettali lu bari waaw ñu mel noonu nag ku am taalibe bu mel noonu doyeetu la nag taalibe boo xam ne si da koy seet ba seet waaye fenn fu mu lay féete cëf ndax xam nga nun ñëpp nag kenn ku ci ne boo nekk ci sa biir kër sa njabootu bopp gi nekk fi ki nga xam ne féetewu la fenn dégg nga amul lenn lenn loo xam ne si sa soxlaa ba nga ba sam xel daj ko ca kooku nag mënta yem ak ki nga xam ne féete na la koo xam ne yow ci sa bopp mënuloo ko sa bopp mbaa mu féetale koo xam ne si boo fa taxawee sa jëmu teew yooyu yaar mënuñoo yem ci yow waaw kon nag nan fexe ba bokk ci taalibe ñooñ ñoom sama kalaas gi jéemu ñoo mel ni ñoom ndax yàlla moo leen saabiqoon saabiqoon ulaayika muqarrabun li ñuy ñaan yàlla rek mooy fexe gëm lañ gëmoon nangu lañ nangu woon ndax yàlla yéegal nu ci ñoom loolu laa bëgg laa sama bokki taalibe yépp am naa yaakaar ci ne guddib taalibe li may wax fii boo demee kër Cheikh Abdou Lahad wala nga dem kër Cheikh Mouhamadou Fadl wala kër Sëñ Basiiru wala kër Sëñ Soyibu foofu foofa dem lii may wax maa ngi ko tibbe ci waxi Sëriñ Tuubaa moom ngay dégg fépp kon ku dib taalibe ni nun waaye sax ku dib jullit ndax Serigne Touba mbiram dafa yaatu liñ doon waxtaane Serigne Moustapha Saliou ji suba dafay xëy si woon ñuy wax ci baaxu Serigne bi xam nga waqi azaya aqraban wa ba man mosumaa gis kuy muslu sa loxo yàlla na yàlla musal ci sama lor yàlla na ci musalu jegeñaal yàlla ci musalub jàmb loolu googu baax kuñ ne daa xotti baax dëgg la wal takfini asa jami al alamin waaye wal takfihim azaya waaw kooku du gis du gis boppam ci lépp lum rek lu ne rek boppam la ci gis waaye du ci gis nit ñi maanaam yàlla mu yàlla musal ci yow nga wax waaye yàlla na la yàlla musal ci man moom sëñ Tuubaa laa njëkk gis mu def ko te gisaatu gu ma ko ba léegi sax ku ko bind fenn kon nag nañu góorgóorlu bu baax te fexe nekk nag murit ba nga xam ne mooy bi gënal sëriñ tubaab ci murit yi te mooy bi nga xam ne day boole sariya ak xaqiiqa te du ca rax dara topp ci yoon bi nga xam ne si itam bu dee ci jàngukaay yi am ci biir euh, fiq ak ci ak ci tawxid yépp nañu xam ne li nu Sëriñ Tuubaa tànnal mooy li gën ci mbir yi nañu topp nun ñëpp aleykum bil malikiya ay waxam la nan ko fonk bu baax ndaxte ginnaaw yonent bi nee ay asxaab yi kan jëm ayyuhum iqtadaytum ihtadaytum kon nag li nu Sëriñ Tuubaa tànn la rek bay ba nu sax ci ba faw bu loolu weesoo noo ngi yeesalaat cant yi ak ngërëm yi di ko jëmale ci mboolem ñi ñu bokkal réew mi am nañ su dëkkandoo yi suñ Moustapha mi waxoon na leen waaye ngir fedd li maa ngi leen di tuddaat ndax xam naa maa la ko maa leen maa ndax man lañ dëkkal ci àll ba muy bokk yi nga xam ne si ñoo féete ci département Linguère ndax xam nga ñaari tool yi ñu yi ñu yàlla séddee yëpp ci département Linguère la nekk muy fii ci bustaan ak fële ci Rawdu Rayaahin ndax tur woowu dama koy wax ndax ñëpp xam ko Serigne Saliou moo ma joxoon tur bi tool yi noonu la tudd damay wax tool yi waaye Rawdu Rayaahin te mi ngi ko tuddee tool boo xam ne Serigne Touba da ko amoon fii ci dëkk bi moo moo moo ko njëkk wax kon nag ñu xam le ne bokk yooyu ñu dëkkal ci àll bi ñenn ñu ay alpulaar lañ waaye ay wolof ci am na ay taalibe am na ci ñooñu ñoo ngi bokk ci waneen yoon waaye ñëpp jullit lañ dëkk buñ dëkkee ak ñun dëkkiin wu rafet di di jaaxasoo dongo yi te duñ leen yàqal ah, loolu bu ma dikkee fi war naa ko seere ci sama bokk yi ci kanam sama kilifa gi ndax mu ñaan yi ñuy sàkku fii ñu ñaanalal ma leen naka noonu bustaan moom it mi ngi nekk fii ci département Linguère nekk ci ci ah, sous-préfecture bu bu Sagata waaw mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ nekkal foofu seet chef de service yeeg ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yu yu mag yeeg yu ndaw yi nekki président communauté rurale yi ak ak ak ñëpp rek conseil yu bare bari def nañ délégation dikki fi màggal gi at mu ñu def ko te bu ñuy dikk sax duñu dikkee loxo yi nen te dafay mel ne ñoom xam naa seen liggéey mayu leen sax ñuy génn seen kër di ko sore lu bari kon buñ dikkoon sax noonu la ñuy war mooy jàppale leen ca seenu dikk ak seenu dem waaye ñoom duñ ko def buñ dikkee dañuy ñëw li taalibe yi def rek lañuy def kon daal loolu bëgg naa ñëpp ñu xam ko noo ngi leen di sant di leen gërëm di sàkku ci sëriñ bi nag mu ñaanal mu ma sama njabootu bopp gi sama njabootu bopp gi laay wax mooy ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sëriñ Abdul Xaadir taali ci sëriñ Moustapha ba ci sëñ Basiiru mi ñoom li fi nekk nit ki li muy def ak yow ndey bu ko ndeyjoor bi defee càmmoñ ba du ko xam da koy nëbb ñëpp loolu nag jaaru na man sama bopp man mi ñu koy defal xam naa ne Serigne Abdou Khadir moo tax ñu ni ko defal ak Serigne Touba waaye war naa ko jottali nag sama cant ba ñëpp xam ko maa ngi leen di xamal ni sant naa leen bu baax fakkastaluñu ma te it seetaanuñu ma ñoom ñëpp lépp lu ma dogo dañ ci fekk si. xëy na man danaa leen jox cër ndax nag loolu laa gis kat gaa yu baax yi daa ko def buñ la. ni ma gisoon ñu di ko def rek mooy loolu kenn ku ci da ngay xool Serigne Touba ci sa morom loola laa gisoon ñu di ko def kon ñoom luñ ma defalit damay jàpp ne dañoo baax di ko def waaye lu leen war ci man war na ci ñoom maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bala may bàyyi danaa wax taalibe yi nga xam ne ñi ngi nekk ci ñi nga xam ne ñoo féete bitim réew benn ci itali bis bi ñuy def tey naka jekk bañ tàmbalee màggal gi ba léegi dañ ko fay def ci ndigalul suñ Moodu suñ Moustapha moo fa daan teew ba nëgëni si moo fay dem di fa teewal waa kër gi ñëpp maa ngi jox ndigal mboolem taalibe bu nekk Italie mbaa sax ci réew yi ñu fa jege te dem nga jàppate ci yow waaye ñi nekk Italie moom dama leen jox ndigal foofa waaye man di nekk bu ñu àggatee ci bis boobu nga di fa dem ndax foo xam ne boo demee ñi nga bokkal yoon wi ak ñi nga ko bokkulut tañ di bokki jullit ñépp da nga leen koy fekk ngay tuddoo googu kër ñu naan daaw ñëwoon na waaye ren dikkut loolu daree àdduna jëru ko loo xam ne yaa ko war a taxawal sa bopp bul seetaan kenn di lu ko defal ñi nga xam ne ña nga fay yëngu ñépp yéeg naa ko bu baax a baax a baax nañ doxalin wa dana pësteefu dana rafet dana ànd ak yéene maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu yàgg koo def yàgg ca dajeeg ngërëmul Serigne Touba mi ñuy wut ngërëmam ci barke Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne sii. naka noonu am na beneen béréb muy Paris moom itam danañ fay def bisub Serigne Abdoul Khadir dañuy def mois de mai ci la ñuy def màggalu Serigne Abdoul Khadir ci itali Brescia waaye Paris ñu ngi koy def ci mois de juin moom it joxoon nañ digalul sëñ Bas. dana ko di teewe diggante at yi yëpp moom laa leen wax nga xam ne déggoo na ak taalib yi mu koy seqal ba waa chef de service sax ñëw nañ ci man ne ma suñ Sidi mi ngi nu booleel de sant nañ ko ndax yombal nañu suñu liggéey kon nag moom it fokk ñu jotal e, cant gi ci moom waaye te di ko ñaanal bu baax a baax a baax waaw dañuy xam rek ne waxtu wi yàgg na te sëriñ bi wax dëgg yàlla xam naa lim lu sedd bari na ba fajar biir nanu ne suñ ko bëggoon it kenn du gis mu yëkki tànkam bi dem waaye nag e, deesu la may lépp nga jël lépp maa ngi sant njaboot gépp di sant mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal kër sëriñ Touba gi li ko dale ci seex Muhammadul Moustapha ba ci seex Muhammadul Mourtada ñi jiite kër yi amul kenn ku fi teewut ndé daanaka ñetti fan yi yépp mënuñoo toog sunu sunu sunu bank ndax suñu kilifa rekk fi dikk loolu nag euh, mën nañ ne seenug baaxa waaye kenn ku ci ne am nga ndaw la ma sëkk ndaw ba buñ ko gisoon it mu sedd suñu xol guy kon loolu ma su ko ñàkk wax ñu ngi koy yeesalaat cant gi ak ngërëm li di sant bu baax euh, ñaar ñi nga xam ne bokk nañ ci taalibe xam naa mëni suta lim taalibe yi kër Cheikh Abdou Khadir yëpp waaye dafa ci am ñoo xam ne dañoo féete kër gi foo xam ne euh, fa leen yàlla teg tax nañu ñu man loo xam ne ñoom ñëpp a ko yéene woon ki nga xam ne nag am nga loo yéene te mënoo ko mu man ko defal la ko warees na la ko yëgal ndax nga xam na nga ko war a jàppe ak na ko war a sante sant nañu Pape Diop mi jiite Sénat sant nañu Souleymane Ndéné njaay mi nga xam ne si mooy njiitul jëwriñ yi ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne dikk dikk nga euh, wane bu baax ne boole nga sa bopp ci Serigne Touba te nanguwoo kenn mën la ca ndax ñoom ñaar ñëpp àgg nañ ci léegi bu ñuy dikk seen këru bopp la ñuy dal daa duñ sax dal ci biir kër gi waaye kenn ku ci ne wut nga sa këru bopp fas yéene nii nuy tooge fii di dundal bis bi ñoom ñu nekk ci seen kër ak seeni i bokk ak seen wëlëre di ko def foofee kon daal nu xam ko ne sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen naka jëkk daanaa ko yóbbante Moustapha mii ne ko na ma waxal président ne ko nañu tëyal Souleymane ne ak Pape Diop ndax nekkal nañ ko ci kër gi féete ko foo xam ne nii bu gisul suñu yitte mu di ko dégg ñoom lu ko fi waroon rek ña ngi koy jéem lañ mën lépp duñu ñu fàtte euh, dispensaire bi nga xam ne euh, président euh, Pape Diop moo coobare woon di ko tabax ca bustaan waaye dafa fekkit président lay Wade joxe woon ndigal ne nañ ko fa def bi loola nag ñaar yëpp moo far am ndax bi dispensaire bee noppee te ci fii infirmier bi war a dëkk ak fi nga xam ne fi les sages-femmes bi war a dëkk noppee gu àggaguñ ci woon moo tax nag ñu ma jox leen ndigal ne leen kon lii nga xam ne moom mooy li président waxoon kon nañ ko féetale ci foofu loola ña nga cay tàmbali nañ ko ci fan yi kon daal sëriñ bi noonu ngi sant ñëpp leen gërëm tey lu nag ci jataay bu yàgg bi te xam ne du suñ coobare waaye nga ñaanal bu baax noonu nga ko waxee rek mm, ñu teewe ko nag gën a déwén teewin bu gën a rafet te dàq ci ñun ñëpp ci barke sëriñ bu baax